alhamdulillahi alladi mbokk yi seetaan Ali Imran TV asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala dellu di julli di sëlmal ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci biir réew mi ak ñi nga xam ne ñoo ñuy topp bitim réew di amaan mbégte lool ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaay bi nga xam ne mooy ata atadabbur atadabour ñu di ko amal ay bis gu jot ci waxtu wi niñ ko baaxoo amale noonu lañ ciy dellu seeti insha allahu taala donte gis ngeen ne jotaay bi ñu koy amalee tey am na coppat tuuti ndax euh, nekkuñu ci biir euh, studio Ali Imran yi waaye ñu ngi fii ci biir daara almisbah fas yéene ànd ak euh, suñu xarit imam Aboubacar Traoré niñ ko baaxoo defee fas yéene séq ak moom waxtaan wi fas yéene waxtaan ak moom lépp loo xam ne mi ngi jëm ci alquranul karim waaye itam amaan mbégte lool ci dellu siwaat ak yéen imam maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoonte ak ñi ñuy seetaan alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Mbacke waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi lay ziyaara bu baax jërëjëf di leen bu baax macha allah di kontaan tamit ci li ñu ñëw ci bërëb bi mhm. daara al misbaax mhm. amalee fii ak tadabbur macha allah moom am na solo lool na solo lool jërëjëf nañ ci lool sax jërëjëf ñun tam bég nañ <laughs> lool vraiment ci <laughs> euh, yitte ji nga ci def mhm. ñun tam ñu def ko ci ndax xam nga léeg-léeg euh, xat-xati jamono jàpp ñu la waaye rendez-vous bi ñu joxante ak waa alquran joxante ko ak waa waa jotaay bi mooy tax Euh, xam naa ne almisbaax moom euh, wala boog atadabour mm-hmm. danañ ko danañ ko seetaan fu nekk mm-hmm. ndax itam fas nañ yéene mm-hmm. euh, fépp foo xamante ne mën nañ faa toog waxtaane alxuraan rek ñu waxtaane ko dafa mel ne alxuraan mënees na ko waxtaane barab bu mu mën di doon barab bu mu mun a doon te da nga wax atadabour jiital ci almisbaax waaw waaye dafa am lu ma inspiré. dafa am lu mu àndi. waaw dafa am lu mu àndi xam nga hmm. misbaax mooy làmp. làmp waaw boo xam day niit da lay hmm. niital. fa ngay jaar dëgg la te alxuraan loolu la. est-ce que waaw misbaaxul. est-ce que <laughs> est-ce que. allahu nuuru samawaat wal ard xam misbaax hmm. ba fa la ñëwee. waaw dëgg la moom ngoog donc alxuraan leer la wa anzalna ilaykum nuuram mubiina. allahu akbar yahdi bihi allahu man ittabaa ridwaanahu subula salaam. allahu akbar wa yahdihim gis nga wa yuxrijuhum min azulumaat الظلمات إلى النور الله ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم الله أكبر الله أكبر kon misbaax boobu mooy alquranul karim mooy an nuur bi nga xam ne moom mooy suratu nuur ci bopp alquran leer la dëgg la boo xam ne yuxrijuna min azulumaati ila nuur ila nuur allahu akbar allahu akbar maanaam moom moom moom alquran moo ñëw ngir génnee ñu ci ak lëndëm mhm. waaye yóbbu ñu ci ak leer mu ngoog waaw est-ce que moo tax misbaax la est-ce tuxrija naas min azulumaati ila nuur wa yahdihim ila sirati mustaqim est ce que <laughs> est ce que macha allah loolu am na solo loolu dafa mel ne leer moom lu am solo la xam baatu leer mhm. léeg-léeg sax ñu jàppee ko ñun ah, lumière waaye daa mel ne leer mooy solution ndax léeg nit ne damaa ne ci ay xat-xat mhm. bu doon olof laay wax te mhm. pourtant fi toog dafa yaatu Pape Doudou mën naa toog ci saal bu yaatu moom doonga nekk fa waaye wax ne man daal damaa ne ci xat-xat fan yi waaye xat-xat yi ndeke du xat-xatu place waaye léeg mu nekk xat-xatu yëg-yëg eh, dafa mel waaye léeg leer nekk di tekki solution lépp waaw nga xamante ne euh, moom daal ay solution la ci nit ki ah mm-hmm. noonu la mm-hmm. leer euh, maanaa tafsiruhu wala maanaahu mm-hmm. muhtamal maanaa c'est relative dëgg la waaw moom euh, mun nga ko firee lu ne solution mun nga ko firee aussi saaada mun nga ko firee ubbeeku mun nga ko firee aussi tamit réussite dëgg la mun nga ko firee lu ne waaw boo xoolee alquranul karim téere bi lu tax mu yéeme. Mhm. lu tax mu yéeme yi day indi benn baat mu indi ko ci ay façon boo xam ne. Mhm. fi mu ñëw fu fu ne rek. Mhm. am na leneen lu muy tekki. dëgg la lu wuuteeg moroomam. dëgg la ñaareel bi moom mooy euh, mun na indi benn baat mu bindee ko si ay façon yoo xam ne. même maanaa bi. lay tekki mais mhm. ci biir nam koy bind ak nam koy indee mun na wuute aussi dëgg la dëgg la waaye lépp day am benn base boo mhm. xam ne mhm. moom mooy mooy mooy laytaay ji mooy laytaay ji waaw mooy fondement bi mooy fondement bi moom gox donc boo xoolee nuur la mu ñëw ci alquran bari na waaw dëgg la waaw dama jàppatul nombre de fois mu ñëw effectivement même sax boo jàpp nombre bi bu ñu jëlee rek suñ borom di présenté boppam daal di wax ne allahu nuuru samawati wal ardi xam nga loolu rek imaam Aboubacar kenn mun kenn mënta tekki ni mu tekki kenn mënta tekki waaw kenn mënta tekki ni mu toll borom bi ne moom a leeru asamaan ak suuf waaw mm. moo tax benn borom xam-xam bu mag docteur Mouhamad Badian mm-hmm. muy wax ni euh, ummatun rabbuha nuurun est-ce que mu ne al allahu nuuru samawati wal ard akbar mu ne wa nabiyuha nuurun mm-hmm. qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin gis nga allahu akbar waaw allahu akbar donc ne wakki wa wa kitaabuha nuurun mhm. wa anzalna ilaykum nuuram mubina nga xam ne yàlla tudd na alxuraan leer waaw wax fi aaya ji nga mujj wax nii maa wàccee ci yéen euh, ak leer mu euh, fee mu ne maa wàccee leer ak mhm. téere boo xamante ne nii moo leen di gindi teg leen ci yoon wu jub bi teg leen ci yoon wu allah gis nga ñoom ñëpp mu tuddee leen nuur alxuraan dëgg la Euh, suñu borom subhanahu wa taala ak yeneen saa sallam dëgg la léegi yàlla moom moo waxal boppam mu ne allahu mhm. mu ne nuuru nuuru samawaati wala mooy leeru asamaan ak suuf est-ce que imaam alxuraan day yëkkati nit alxuraan dafa mel ne dañ koy faral di wax waaye mhm. pratique bi boo xoolee da ngay gis ne lu leer la loo xamante ne saa yu nit xoolee gis ko mhm. mm, maanaam dundi dundinu dundinu jullit beeg alxuraanul karim dafa mel ne ay yëg-yëg la am na am na koo xamante ne xamul sax li ngay wax nii lan la waaye tey buy déglu imaam di jàng alxuraan li muy yëg moom rek a koy xam. loolu loolu lan la imaam. waaw loolu euh, barke la bi yàlla roof si alquraanul karim mm-hmm. mm-hmm. waaw mm-hmm. Euh, xam nga boo xoolee euh, ñeenti aaya ñëw na ci alquraan waaw yoo xam ne bu si nekk yàlla miy boole barke maanaam albaraka ci biir aaya boobu ne alquraan dafa ànd ak moom dëgg la waaw dëgg la mu ñëw na ci suratu Saad. Mhm. ñëw ci suratu al al anbiya. Mhm. ñëwaat aussi ci suratu al euh, al ñaari yoon. Mhm, kon alquran mu fa ànd ak barke loolu tax léppam dëgg la dafay barkeel moo tax ku ci ngoy ku ne rek nga koy moo xam da ngay jàppale ñi ci nekk wala nga bëgg leen wala nga ngay ngay ngay ànd ak ñoom wala ngay bokk ak ñoom dund alquranul karim yàlla mooy am secret boo xam ne daf ko siy def allahu akbar beneen bi moom mooy boo xoolee si suratul euh, al anbiya suñu hmm. borom mi ngi wax ni laqad anzalna ilaykum kitaba hmm. fihi dhikrukum afala taqilun wallaay ndeysaan mooy li ngay wax noonu dafay def dafay nekk sharaf est-ce que jàng aaya jàng jàng aaya ju yéeme waaw waaw maa wàccee ci yéen alquran waaw alquran ñëw nekk seen teraange mm-hmm. seen teraanga Hmm. borom bi daal di posé benn question afala taaqilu afala taaqilu allahu akbar waaye yéen du ngeen xellu nag xam ne lii seen teraanga la seen njariñ la ngeen jël ko jariñoo ko coono yi daj yëpp ñàkk ñàkk euh, fonk alquran dëgg la te bu ñu nee fonk bi bu ñu jàpp ne maanaam jàng ko rek mokkal ko kese mhm, mhm. mooy mu nekk système de vie dëgg la dëgg la looloo tax mu wàcc dëgg la waaw li yuxrija naasa mina zulumaati ila nuur bi izni rabbihim allahu akbar génnee nit ñi ci ténèbres yi ci lëndëm yi mhm. lënd mhm. crise économique mhm. crise politique mhm. crise sociale crise morale crise yëpp mu génn ñu ci yóbbu ñu ci leer allahu akbar yóbbu ñu ci leer yëpp boo xamante ni ku ne day gis boppam ci penc ku ne day gis boppam ci même ñi gëmul alxuraan sax dañuy gis seen bopp ci ëttu alxuraan dëgg la dëgg la parce que moom daf leen jox cër boo xam ne laa ilaha illa macha allah am na solo imaam jërëjëf loolu dañ ko doon lay taaye jotaay bi waaye di la jot li nuyoo soppee euh, atadabur yëpp vraiment ñu ngi ci àdduna bi yëpp Eh, di bàyyi xel jotaay bi di ci bég di ko wétali koonte ku lim juum eh, ñi ngi woon ci sóoratu yaasin mm-hmm. sóoratu yaasin saar la woo xam ne boo alxuraan doon amub xol dañ ñaan mooy xolu alxuraan eh, ba pare itam li ci nekk ci njàngat bari lool mm-hmm. léegi nag suñu taxaw yi ñu def mm-hmm. di def ay taxaw ay ay waxafaat waaye nag def ay taamulaat di def nag ay ta ci ci li nga xamante ne mooy aaya yi dafa mel ni moo ñu yóbboon ci ñu jël saar wi boobaak léegi ñi ngi rëppatal ndox boo xam ne taxu ko gaaw waaye olofay wax ne yoonu ndaw du gaaw te li ñu romb lépp dañ ko bëgg a seetantal mhm. te moo ne sax léeg sama xel nekk ci ñu delluwaat ginnaaw mhm. ndax ci diggante bi léeg-léeg may xalaat li ñu weesu woon gis yu baree bari yoo xam da nga koy bëgg wax ci yaasin mhm. gis loo xam da nga koy bëgg a waxaat ci wal quraanil hakim gis loo xam da nga koy bëgg a waxaat ci innaka la minal mursalin waaye fi ñu toll am solo lool ndax ñi ngi toll ci benn xissa boo xam ne bi ko saar wi di tàmbali borom bi daa wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko wadrib lahum masalan asxaabal xarya léegi nag euh, xissa bu am solo boobu nga xam ne moom la ñuy nettali ba agsi ci fi ñu tolloon nii te mooy jolla sant kàddu yi nga xam ne moo doxoon ci diggante euh, mursaluuna yooyu mhm. ak ñi nga xam ne ñoom lañu yónni woon ci mhm. ñoom nga xamante ne euh, waxante nañ lu nekk mhm. ñi ngi agsi woon ci tontul gaa yi xaaloo tairukum maakum waaye nag duñ doyal mukk ci nga ñuy jàngal alxuraanul karim ñu koy féexale suñu xol mm-hmm. moo tax danañ jàpp mbaxana door ñëw nag ci eh, seetantal mm-hmm. aaya nga xam ne eh, ci lañ taxawoon imaam Abubakar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث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 inna tatayyarna bikum mhm. la in lam tantahu la narjumannakum mhm. wala yamassannakum minna azabun alim loolu waxoon nañ ko keroog mhm. waaye tontu la mooy xaalu tairukum maakum eh, imaam Abubakar ndeysaan dama dégg benn mag bu baax mi wax mu ne bu nit ñi di jàng xuloo xuloo waaw xuloo gi waaw waaw yow yow jàngal tontu jàngal tontu dëgg la dëgg la yàlla dafa jàngal yeneen ci ni ñuy tonte ni ñuy hmm. indee ijaaba shaafiya hmm. kaafiya est-ce que waaw est-ce que ñoom technique de euh, communication waaw daf lañ ko defal dëgg la waaw dëgg la suñu borom euh, fonk communication ak euh, maanaam discours hmm. tax na ba gis nga yeneen yàlla Moussa dayo bu mu amoon ak si si si borom bi subhanahu wa taala nga xam ne da doon wax ak moom directement wa kallama allahu muusa taklima allahu akbar bi mu desee ba communication jot ah boobu ne dañoo changé waat données yi waaw ah, moom ci jëmmi boppam gis na ne communication importance bi mu am te ka mu war mooy buur bu gën a saay-saay ci kaw suuf muy Firawna waaw ah, mu daal ne ah sama frère bii de moo gën a éloquent oh, dëgg la waaw a mu renforcer communication waaw mu renforcer communication yàlla yàlla yombal ko waaye teewul tamit mu renforcer ko ci ci mbokkam waaw lu am solo nga wax ne <laughs> dafa mel ne ubbilaat nga ma meneen lef moo xam ne sax bàyyiwu ma ci woon xel muy Euh, philosophie yu tontu. philosophie tontu tontu <laughs> tontu tontu dafa am aar. Mhm. ndax nit dana tontu tontu li tontu li dal. wax ja yam fa. nit dana tontu dugal boppam. <laughs> waaw xam nga xam nga xam nga àdduna lépp daal mel ne mi ngi dox ci laaj ak tontu. laaj ak tontu waaw toujours nit ki réponse bi muy joxe. Mhm. ci fee yeeg xew-xew yeeg. Mhm. wax yeeg yëpp. dañ ko ciy naw wala ñu xeeb ko ci ñu xeeb ko ci mën euh, léeg itam kenn ku nekk ni nga toll noonu ngay tontoo. waaw xam nga euh, gënoo maa nangam. di nga xam ne maa la gën a nangam <laughs> loolu daa mel ne ñu mat ñi daanu ñu <laughs> tontoo noonu waaw ñu mat ñi ci biir li nga wax xam nga tey mm-hmm. da ngeen a aay gaaf mm-hmm. da ngeen a nangam boo xoolee yonent yi attaque attaque attaque verbale yi nga xam ne moom la leen gars yi doon mm-hmm. attaque di nga xamante ne dal sa kaw téel waaye toujours ñoom seen seen personnalité du suufee bu ñuy tontu lu ñu yàq seen bopp ngir bëgg a tontu am na koo xam ne ku baax la waaye bëgg a xuloo mooy tax day nangoo yàq boppam ba mën a xuloo te loolu mm. lislaam jàngale ko noonu moo tax lu am solo la imam lu am solo la lu am solo la tontu li nga indi nii am na ah. solo lool xam nga mm-hmm. tey mm-hmm. alxuraan sax léeg yàlla tontu yonent bi mm-hmm. pour nga xam ne tontu daa am solo bi biñ ko waxee ne ko ab dof la wala ab njabarkat la borom bi ne wa ma saaxibukum bi majnun waaw <laughs> waaw waxul ne yéen a ko gën a dof déedéet <laughs> déedéet bi ñu waxee ne yonent bi dafa sàcc lan la wax wa ma kaana li nabiyin an yaqul la waaw wa man yaxlul yati bi maa xalla yawmal xiyaama yàlla waxul ne sàccut de waaye dane dafa loolu dafa yëllut ci ab yonent waaw pour voilà pour yóbbaale yonent yëpp ne yëllut ci ab yonent muy sàcc daa def point mhm. daa ne nag te ku fi sàcc dara ëllëg ah. yow mal xiyaam la nga sàccoon di nga ko remboursé da nga ko <laughs> allah macha allah macha bi ñuy tontu dañoo tontu tontu bu am solo dëgg la boo xoolee toujours ñett point la ñuy indi waaw gars yi weddi maanaam ñi ñi nga xam ñoom ñoom la yeneen tii di waxal mhm. ñoom it bu ñuy tontu toujours dañuy indi waat ñett rek la dëgg la qaalu inna tatayyarna bikum dëgg la la in lam tantahu la narjumannakum mm-hmm. wala yamassannakum minna adabun ñetti biir allahu akbar waaw ñoom itam lan lañ wax qaalu tairukum tairukum maakum benn waaw a in dukkirtum ñaar mm-hmm. Mm-hmm. bal antum qawmu musrifun ñett est-ce que waaw est-ce que kon li ngeen ñiy accusé ne ñun ñoo leen créer problème yi yëpp maanaam ñun dañoo gaaf ak ñu ngi créer ay jafe-jafe ci société bi ñu mel ni ñun fu ñu dugg fu ne tôt ou mhm. yàlla mhm. alak waa dëkk ba wala mhm. jafe-jafe am fa loolu yéen a ko yéen a ko sabab li ngeen mel nii waaw loolu moo koy indi dëgg la léegi nag imma léegi virus bi nekk seen biir la muy virusu euh, cancer bi nga xam ne su nekkee si jëmm faaw mu jóge fa wala fa mu nekk ñu daal di kay ñu daal di kay ñu daal di kay euh, maanaa dagg ci cër boobu léegi nag malaat bi nangu loolu ngir mën a wér loolu moo ne seen biir société dëgg la te fii ak yéen a ngi bàyyi wax yu muy message borom subhaanahu wa taala cancer ngeen di créé ci société bi dëgg la dëgg la kon nag tairukum maakum et puis imam xam nga changement yombul mm-hmm. dafa mel ne looloo dañ ko ciy déggee mm-hmm. kii ñëw di indi lu bees nit ñi bàyyi lañ nekkoon du yomb ci ñoom euh, te itam euh, léeg-léeg nga dégg ba ci suñ débat politique yi mm-hmm. ci penc mi nit di wax ci programme ñu bàyyi ko fa di wax ci jëmmam xam nga loolu <laughs> moo feeñ fii tey ñi yonent yi ñëw di leen woo ci wéetal yàlla di leen woo ci nangam ñu bàyyi fan la ñuy woote de naan leen yéen da ngeen ay gaaf yéen yéen yéen ay nit ñu nit ñu nangam ngeen léeg sax ñu xas nit ki ci juddu ah. te nit defut benn suwaa ci ni mu juddoo léeg ñu xas nit ki ci ab bind xam nga damay faral di wax bu nit nee diw ni mu gàttee mhm. ma ne moo ne moom amul benn benn <laughs> maanaam amul benn effort bu muy def pour njool xam nga loolu bindu bindu bi yàlla la ah, loolu loolu plainte bi doo ko jox mm-hmm. moom keneen nga koy déposé ji eh, voilà programme la ah, euh, c'est-à-dire lool dañ ko ci jànge nga xam ne euh, toujours it ki yor benn message war koo joxe ji war naa war naa moytu luy fàbbi message am mm-hmm. ndax ñi ndax ñii góor góorlu nañ ba dara fàbbiwut message bi ñu yor. Mm-hmm. toujours ci seen logique bi ñu nekk. ñi ngi ci. maanaam ci loolu lañ nekk. albalaaxul mubin waaw albalaaxul mubin waaw toujours ñoom ci biir tontu li. Mm-hmm. dañ ciy jàngale waale. Mm-hmm. am na koo xam ne dangay ngay moom wax ko naka sudut noonu. waaye réponse bi mu lay jox moo lay mujj dellu si waat ci raison. waaw waaw waaw <laughs> est-ce que. réponse boobu. boo moytul da lay déstabiliser wala mu hmm. motiver la dëgg la ñaari yëpp day la mais la plupart quatre pour cent ci société yi comme ni nga ko hmm. waxee hmm. changement bëgguñu ko dëgg la dañuy ragal changement dëgg la léegi moo tax nag message bi ñu lay jox wala tamit réponse yi ñu lay jox da lay déstabiliser da lay décourager dëgg la wa laqad naalamu innahu la yahdunuka alladi yaquluun wallaay ndeysaan gis nga wallaay ndeysaan yeneen ti fa innahum la yukadibuna fa innahum la yukadibuna wallaay ndeysaan loolu dafa diis imaam wax jooju daw na yaram wallaay ndeysaan am na sax fu ko borom wax naan ko xam naa ne sax li lay wax metti na la metti na la waaw xam naa ne li ñu lay wax metti na la ndax mag mu toll na yow ak ni nga baaxee waaw waa dëkk bi doo waxkatu dëgg waaw xoolal lool rek yàlla eh? Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu xëy ñoom ñëpp toog ci gaaram place yi ne du waxkatu dëgg du waxkatu dëgg waaw te mu wóor leen ni kii waxkatu dëgg la waaw waaw léeg sax doomam faatu ñu ne ko ñëw da nga ay gaaf moo tax amoo doom juy dund doom joo am mu faatu waaw yow yaa ngi woote yàlla naan yàlla yàlla te loo jur mu dee eh, seet yàlla ne ko xam naa ne li ñu lay wax metti na la mhm. metti na la mhm. seet fala yaxzunka qawluhu waaw bu mu la déranger waaw li ñu lay wax metti na la oh, ci alxuraan waaw waa yàlla ne ko bu la metti bu mu la metti bu mu la metti parce que mooy vrai développement personnel allahu akbar mën a mën a mën a supporter mën a encaisser mën a encaisser est-ce que nekk euh, li wax euh, maanaa homme de valeur waaw mhm. ah, nit koo xamante ne bii da ngay yore jikkoy mbalit dëgg la nga xam dañuy ñëw di la këpp rek yow boo xëyee raxas kii tuur yi ñëw nekkaat fa nga nekk ku ñëw rek lu mu am mu xëpp la ko dëgg la waaye toujours yow positif rek effectivement ngay ngay indi lu positif rek ngay indi wallaahi kon xoolu tairukum maakum mhm. kon li ngeen men moom moo mhm. mën a créer li ngeen ñi li ngeen ñuy accuser dëgg la mooy ñàkk déglu yàlla mhm. ñàkk déggal yàlla ñàkk topp yàlla ñàkk bàyyi xel message bu borom subhanahu wa xool ni nga ni dundee société métti na société bu lëndëm cruise ci ay ay caaxaan ak tooñante jëlante ay àq waaw amul benn loi amul benn mm-hmm. règlement mm-hmm. amul benn organisation bu tegu ci ci fitra waaw bu tegu ci logique lii mooy mooy mooy mooy gaaf di mm-hmm. dëgg dëgg dëgg waaye nag a in bu fekkonte ne yéen dégg ngeen message bi dëgg-dëgg mm. kon doo leen ñu wax lii seen réponse du doon lii waaw kon nag li ngeen ñi accuser ñi ñun njàqkat lañu dañuy créer ay bêtises loolu ci yéen la nekk hmm. bal antum xawmun musrifun xaw mun musrifun waaw yéen nekk di yàq macha allah macha allah wax ju am wax ju am solo la hmm. yoo xamante ne yonent yi yàllaa leen tànn ñoo leen yoon yónni hmm. waaye li tax mu jox ko yonent yàlla muhammad ne ko wadrib lahum masalan ashaabal xarya waaw daa mel ne dama koy faral di wax mag ñi daan nañ yare noonu jékki-jékki fàttali loolu benn xissa nett li la ko xam nga jamono ji ñu toll nga xam ne ñi ngi ci jamono yu mondial euh, ñiy football di football léeg-léeg mu nekk yeneen jamono yoo xamante ne am na jongante yu ñu def àdduna mën ngaa wax ne ba muy àdduna ba léegi ci jongante la ma sa nekk. dëgg la xam nga am nay jamono lan moo nekkoon jongante yi. Mhm. mooy ñun ñoo ñun ñoo gën a bari ay soldaar ñoo dàq xeex. am na jamono yoo xam dañ naan maa a man nga war <laughs> euh, maa gën a man nangam léegi kenn ku nekk ci lim nekk buñ ko ciy jàngal dañ koy fàttali ña ca def ak njàmbaar mhm. moo tax lépp daan am njariñ moo tax cax daan am njariñ moo tax nettali sa daan am njariñ alxuraanu karim day am yu ci nekk yoo xam day mel ni ay lépp te du ay lépp Euh, fii ñu toll nii da cee bokk ndax mhm. maanaam dara daraballaahu mathalan waaw euh, tey bu yàlla ne maa ngi joxe misaal mhm. maa ngi joxe exemple waxoon na ne euh, dafa am ñoo xam ne seen xol daa feebar ñoom lii bi duñ ci jànge dara lu du lu tax yàlla di misaal lii waaw lu tax yàlla di misaal lii te pourtant day tudd léeg loo xam ne nit da koo ñàkkal solo mhm. waaye lim ci mën a jàngi am solo tax yàlla joxoñ ko ko moo tax mu lay joxoñ yoo mm, di joxoñ ankabut waaw di joxoñ euh, di joxoñ naml waaw euh, di joxoñ di joxoñ yooyu yëpp mu koy joxoñ day mel ne ay misaal la yuñ ci war a jànge mm, xissa bi muy nettaliwaat yonent yàlla muhammad te tey ñuy jàngat ba agsi ci moom itam liñ ci war a jànge noonu la tollaat imam ak mhm. tarbiya bil qisas dëgg loolu dafa bokk ci méthode alquranul karim mhm. maanaam euh, former nit ki orienté ko yar ko mhm. ci indil ko ay fee ay jaar jaar ay histoire yu jàll tey jii ne àddina bi bari na lu fi jàll ci ay mbir yi bari première guerre mondiale jàll na deuxième guerre mondiale jàll na mais tey tubaab yi nu ñu rep rep rep. ñu ngi mhm. def le tout pour éviter. troisième guerre mondiale donte que nit ñee ngi koy ah, wax. parce que parce que lañ jàngee ca deuxième guerre mondiale. waaw xam nañ ne euh, dafa bloqué woon adduna bi. dafa bloqué woon adduna bi da koo posé woon mooy gën garaaw bu mhm. amee ñaanuñu ko yàlla. waaw mooy gën a garaaw. Mhm. léegi nag jàngati yooyu dafa am solo alxuraan loolu la lay indil. indil la ay xissa yi bëree bëri. indil la ay jaar jaar yi bëree bëri. léegi nag. Euh, lan la lay wax léegi mhm. boo demee ci suratu yusuf laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab ma kaana xadiisan yuftara ma kaana xadiisan yuftara walakin tasdiqa alladi bayna yadayhi wa tafsila kulli shayin wa hudan wa rahmatan li qawmin yu'minuun allahu akbar waaw waaw yàlla nee na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi ma lay nett nii mhm. di la ko wax mhm. du ay du ay nett li yoo xam ne Eh, ay scénariste ko bind de du loo xam dañ koo fent <laughs> loo xamante ne sama gars yee toog rek monté seen ay scénario <laughs> eh, damay wut benn rôle <laughs> benn personnage Yankoba damaa soxla benn pa mm-hmm. eh, soxla ay frère déedéet yàlla nee na ko mm-hmm. mbir la moo xam ne lu mm-hmm. wér la lu wér la waaw lu lu wér la loo xamante ne mi ngi fi waaye nag ay orientation de cee nekk yoo xam ne ki muy jariñ nag mooy ñi nga xam ne ñoo ko gëm allahu akbar allahu akbar ibratun li ulil li ulil albab waaraate da cee nekk waaye borom xel yi moo mhm. indiwaat atadabbur parce que xel mhm. nit bu koy jëfandikoo ci li mu koy jëfandikoo loolu moo koy yóbbu ci settantal yëf yi settantal yëf yi la léegi ñaari taxawaay day mhm. feeñ mooy xel mu settantal mbir mi xam ko ràññee ko xam li xew léegi nag beneen mbir ñëw ko doomu aadama ñëw muy dëgër bopp ak rëy dëgg la lii xam naa ne lii la sax mee mu bañ a bàyyi xam nga wa kaana al insaanu aksara shay'in jadalan alquran wax ko hanit mm-hmm. doomu aadama nekk ku dëgër bopp mun mm-hmm. a xuloo dëgg la waaw euh, su ma xoolee mbir yi nu muy doxee ci àddina bi ñu jël exemple suñu réew tey problème politique beeg yu mm-hmm. bari suñ ko doon juñu tey nga gis amoon na jamono euh, buur bi fi nekkoon am ku fi nekkoon soxla réew mi waaw waaw mu indi xissa bu yéeme xissa Muusa ak Firawna dëgg la la dëgg la mais pour bu yéeme. nga xam ne loolu. te xoolal jàngat bu yéeme tax mm, xam nga mooy mooy mooy histoire bu dul xew moom. bu dul xew yi moo tax léegi bi nga duggee surtout xasas. di ci wax ci communication mu neex ma lool. parce que saar woowu li mu ci jàngale bari na lool dafa bari bari na lool mhm. léegi nag tey yàlla dénk ko nguur gi tey jii ni ñuy gis yoo xam ne moom la mu doon wax démb mhm. loolu moo fi nekk. kon teewul ne xam na ko kon est-ce xam na xam na li waaw saafara saa ngi fii produit bee ngi fi àdduna dañuy jàngal boppam dañuy jàngal boppam waaw moo lay won ne day tourné rek day tourné day day tourné àdduna luy tourné la daal mm, kon alquran toujours actualité la waaw dëgg la l'histoire se répète ak taarix yu idu nafsa yu idu nafsa wallahi wallahi donc loolu dafa am solo mm-hmm. donc moo tax euh, waqafaat yi ñuy def ci aaya alquran yi mm-hmm. moo xam kalimaat yi mm-hmm. moo xam xuruuf yi dafa am solo parce que bu si nekk rek am na panneau bu mu lay tafal ba wala étiquette bu mu lay jox boo xam ne imma nga jëriñoo ko imma mhm. tam nga nga ñàkk koo faale mhm. mu duru jural la danger effectivement xam nga mhm. loolu dafa am solo fi ñu toll nii tey ci wàllu xissa yi nga doon wax léegi ne xissa day ñëw ci anamuk tarbiya fi mu ne ki ami jafe-jafe sax bu ñëwoon tey ci nga koy eh, régleel ay problème am da nga koy nett ay histoire dëgg la waaw li muy li muy dund dafa am ko ko mas a dund koo xam ne bi mu ko dundee muñ ko ni mu ko war a muñee après yëf yi jural na ko ay résultat yu bari léegi nag faaw nga indi laatal ko loolu hmm. faaw nga indi ko loolu moo tax ki la dàq def loolu ci nit mooy ki gën a mën a dimbali nit waaw damay faral di wax ci hmm. wàllu euh, donc motivation nga xam ne nit ki day motiver nit ki nga xam ne motivateur la hmm. léeg day day day jële nit ci suuf di ko yóbbu ba ca kaw nga xam ne da nga koy renforcer ba développement personnel am day nekk koo xam ne day mën a jànkoonte ak benke ñenke àdduna yi <laughs> parce que imaam Aboubacar nit ki fekk jubóowut ak boppam mënta jubóog lim jàkkaar lool jubóog boppam mhm. mooy euh, mu am mu am mu am siqa mhm. euh, bi nafsihi ba nga xamante ne wala wala aw bi saatihi mhm. ba nga xam ne li nga xam ne moom lay jàkkaar lool bu ñëwee moom dana mën a waaye nit ki nga xam ne taxawut moom moom ci boppam moralement taxawut ci loolu lu ñëw da pour mu déstabiliser ko day yomb day gaaw sama àdduna yàqu na man torox naa man fan laa jëm yàlla loolu la doon jox yonent yàlla muhammad moo tax xam nga suratu yuusufa saar bi te nga tudd ko léegi boo xoolee ni mu ñëwee xissa bi ci at moo xam ne at mu métti la ci yonent bi amul xusn amul at moo xam ne atum njàqare la bi ko yàlla indilee yonent yàlla mm-hmm. Muhammad mm-hmm. moo tax dëggu ko daf ko dafa jékki-jékki rek wàccee mooy wenn benn xista ci alxuraan boo xam ne mm-hmm. daa tàmbulee ca ca juddug Yuusuf ca gént ga jaar ca euh, jaar ca teen ba jaar ca doon euh, ab jaam jaar ca dem ca kaso ba jaar ca nekk azizu misra jaar ca dajeeg ay waajuram ba ni muy jee borom bi ne laxad kaana fi qissasihim ibra li ulil albaab macha allah waaw <laughs> macha allah waaw xam li yuftara parce que su ma ko jaarale nii tasdiqa alladi bayna yaday day mel ne da ko doon tàpp tàppal waaw <laughs> da doon tàpp tàppal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu kaay ma nett la qissa hmm. boo xam ne ci alquran daf ko commencé ba muy jeex hmm. arrêté wu comme ni nga ko waxee waaw ba pare ñu dajee ci même saar mhm. boo xoolee xisa Moussa da ngay fekk ah, euh, Baqara nga ñëw mhm. fekk ko ci Araf fekk mhm. ko ci suratu Qasas fekk ko ci Shuara naka noonu ainsi de suite mais suratu Yusuf moom moom lépp da koy indi benn amul lenn looy jàngat ci dund doomu aadama wala jaar jaaru doomu aadama wala dund sax état wala politique wala loo gis rek lu doon mi ngi sur suratu Yusuf dëgg la da nga koy fekk ci biir dëgg la waaw mais bu yéeme ci wàllu science ci wàllu xam-xam wàllu organisation wàllu gestion wàllu euh, gestion économique. Mm-hmm. wàllu lépp loo xam ne PIB la. Mm-hmm. Euh, produit intérieur brut. yi ngay gis dëgg la koo jàngale nekk wàllu économique ba ci sax laaj poste ak xam-xam ak gëstu. am na solo lool. waaw bu ñu dellu si waatee ci suurtu mm-hmm. yaasin fi ñu tolloon léegi. ndax euh, lépp ci njàngale mi la bokk waaye seetantal alxuraan ki ko bëgg a def. léeg-léeg faaw xam nga tey ki bëgg am lu rafet. day day ñemee boole ay yëf. dëgg la day ñemee boole ay yëf boo xoolee tey léeg-léeg euh, ñoom du du ñi nga xam dañuy liggéey ci wàllu image léeg nit ki génn cadre bi mu nekkoon mhm. waaye fekk daa am lu muy jëli ndax loolu bu ko indee mooy rafetal image bi image li muy def mhm. Mhm. alxuraan day waxtaan day day waxee noonu waaye noonu la mel sax noonu sax la mel waaw moom moom moom moom alxuraan noonu la mel moo tax it kii settantal di def tadabbur ci yëf toog euh, di méditer ci benn mbir moom itam faaw mu nangoo def loolu moo tax nit nit nag war naa mën a teewlu war naa mën di teewlu di xalaat waaw di seetantal ndax loolu da koy yokku da koy yokku Serigne Cheikh su ma juumale Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum ak nga ko mënoon jàngale lool masha Allah yàlla da ko mayoon xam-xam quoi mm-hmm. ba pare am xikma bu yéeme daa mm-hmm. am benn waaye bu doon wax mu ne mu ne alxuraan dafa jaxasoo quoi. Mm-hmm. mu ne parce que dalay wax asamaan wax la suuf. wax la julli wax la julli wax la mbedd mi wax la garab wax la mbedd mi waaw ci benn aaya quoi. waaw euh, mu nekkoon ni soo bëggee xam bootee alquran. Mhm. mais da ngay dem ci forêt bu naat. Mhm. waaw àll boo xam dafa naat. Mhm. mu ne àll bi li tax mu rafet boote boobu. mu da nga fay fekk jaan. fekk fa xoronom ya. fekk fa garab ya. fekk fa gayna ya seen picc yi waaw fekk seen picc yi. mu ne gis nga jaxasoo boobu. looloo tax mu rafet. wallaay looloo alquran bi. mën a mën a composé mën a boole ay yëf moo tax kon imaam ñu jeexal tey suñu suñu suñu bindu tey. dafa mel ne man li ma ciy jàppee. muy li ci gën a ràññeeku ci man. mooy tontu. ni tontu tontu waaw joxe réponse boo xam ne réponse bu net la waaye itam réponse bu correct lay doon parce que ñoom wax dëgg mhm. yàlla seen seen melokaan en tant mhm. ñu yàlla yoon yónni mhm. feeñ na ci ni gaa yi ni leen gaa yi wax dëgg la tontu nañ leen waaye débordé wuñ te alxuraan ne woon na kuñ tooñ sañ ngaa fayu <laughs> boo baalee moom a gënal bi nga jëlee bay fayu yi mun la bul ëppal na nga lu toll ne te dafa fay dafa dafa feeñ ci aay waaw na nga na lu toll ne liñ la tooñ <laughs> gaayet boo xoolee hmm. da ngeen aay gaaf hmm. gaaf gi kay ci yéen la nekk waaw da ngeen a nangam ñun koy defuñu nangam yéen a ko def waaw léegi rek damay dox am sama benn xarit bu ma dajeel fële ci rajo ba maa man de oustaz xama looy jaay laa xamut waaw xam nga daf maa yeb na di ma tooñ ma ne ko waa bu fekkee lu ma doon jaay la fim mu ne yow benn bëggoo ko li may jaay bëggoo ko <laughs> te it amoo njëgam <laughs> xam xam nga baax olof lool la waaw maanaam c'est-à-dire waaw léegi yéen donga yi fi ne da ngeen di tontu nit rek muy bëgg a génn ak daa mel ne ci fii ngeen ko jàngi xanaa <laughs> waaw alxuraan da lay jàngal tontu day jàng tontu boo mu tax boo boo gisee euh, maanaam nu mu tuddee sax euh, borom xam-xam yi mag yi yëpp. ñu a loolu la alquran moo leen ci formé. dëgg la waaw xoolal imaam euh, kii la Abu Hanifa. mu daan tonte bañ ko ne yàlla nan la mel nag. nan la ba xam daa weex wala daa nangam. xoolal tontu yi muy indi rek. loolu yëpp alquran la te lépp ci alquran la. waaw moo tax mbokk yi nañ mhm. nañ delluwaat ci téere bi. Mhm. waaw di ko jàng te di ko seetantal te di ko déglu. <laughs> waaw danañu yóbbu ci ñu am. Euh, fatxu boobu fatxu boobu te ko xasee am rek lépp yomb ci. Mhm. Abul Yazid al Bastani. labbe bi laajee vingt questions mu ne ko boo ko tontulee dañ lay rey mhm. waaw mais lépp ay alxuraan la ko tontu yëpp kan mooy benn bu amul ñaar ñaar bu amul yooyu yëpp lépp ay ay alxuraan la ko tontee alxuraan kon lay jàngal ki masha allah jërëjëf imam Aboubacar mbokk kon ma mhm. fàttali rek atadabour ngeen di seetaan mhm. eh, dara soppeeku wu ci eh, ngeen seetaan ci biir Imran TV loolu la demee Eh, fi ñu nekk itam jotaay la ci jotaay yi Ali Imran TV moom rek ndax eh, mm-hmm. daara ju ñu jiite la di daara almisbaax waaye studio ba itam ma nga fa Eh, tey xat-xat yee taxoon ñu génn tourné ko ci bitti ndax bañ leen a neenal bëgg bu ngeen jàppee jàkkaarloo ñun ñoo ngi leen di jaajëfal baax ci ni ngeen ñu doon toppee maag sama consultant bu doy waar bi eh, sama chroniqueur eh, imam Aboubacar Traoré al imam ma bàyyi la nga joxe sa kàddu yu macha allah sant yàlla bu baax rek di la gërëm bu baax tey moom liy ñëw fi moom kontaan naa ci loolu lii moom foog ñu koy bari comme ni nga ko ah. waxee ñi génn tadabbur di génn xam nga fii café rek la am waaw ak miskit te tey miskit mi bi nag am na am na am na secret ci biir da am na secret jamono ñu joxoon nag. <laughs> Euh, am na solo lool yooyu yooyu buy am Pape Doudou ñëw. du ñëw de bu la ñëw ak Serif yëpp mën <laughs> yooyu am na solo daal <laughs> macha allah di la jaajëfal bu baax di kontaan vraiment ci jotaay bi di mm. nuyu waa Ali Imran TV yëpp si jiital al oustadul jalil al hakim oustad Alioune ak soxna Fat Diallo moom ngoog ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax macha allah salaamaaleykum tullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf imam Aboubacar Traoré mbokk yi doon topp Ali Imran TV seen jotaayu atta a ngi noonu olof yaay wax ne lu jiw a jeexut jógu fa lii itam jiw wi jeexut ndax mooy alxuraanul karim kon yàlla ñu fi yàlla bàyyi du fi jóg bu boobaa dinañ ci dellu siwaat indi daal leen ci yeneen i waxtaan yeneen i settantal yoo xam ne yaakaar nañ ne danañ leen amal njariñ amal ñu njariñ yàlla nañ ci bokk njariñu cant ngërëm ñeen na leen ba ay bis gii di ñëw ci beneen jotaay insha allah wajjahtu kulliya bihamdin wa shukur ila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 الحمد لله الذي أغناني وأعزني lekk bu nekk doon waxtu bànneex lobb Maam Jaara Buso ngi leen di gunge lu ëpp ñaar fukki at ci seeni biir kër féete ak kilomètre ci yoonu Tëngéej fii ci Ndakaaru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 te it ngeen yelloo li gën lobbu maam jaaru du jóg si di indi lu bees di xoolit fu gën a sori. alhamdulillahi alladi agnaani wa a'azzani. الحمد لله الذي أغناني وأعزني